ndax seentu woon seentu woon ngeen yooyu lee jéego ak lan ngeen ci xaar ci bile équipe yi le raaya lu ñu mën a jural ëllëg eh, ci wàllu football eh, ci Afrique ak àddina gi 88 la 628 99 99 111 am na ku yëglu ñu jël ko ci bu mu jokko bi allo. oui asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum eh, salaam. Aliou Diagne. Orñan. waaw Seydina Ousmane mu sell mi la baax. dara tamit bu Sadio Mané. am na ci solo ñu ngi lay fay. waaw maa ngi nuyu Sadio Mané Fatou Binetou Sotone Aliou Cissé. waaw maa ngi bu baax a baax euh, euh, Bob. waaw. vraiment mënuñu li may félicité équipe bi yëpp yëpp commencé ko ci Aliou Cissé. ba ci fédération bi yëpp. te fédération man li doon na laan attaqué man suma appel laa man du ma fanal fenn. mais palmarès bi ñu def nii indil ñu ko taxaw tànk satra yu fa ne yëpp Sénégal yi jël ko hmm. ak tax dëgg yàlla képp koo xam ne sa xol sedd ci hmm. boo def Sénégal ak arab dana ma jaaxal képp koo xam ne sa xol sedd ci lii hmm. boo def boo ne ma Sénégal nga nangu kas sa katam juróom-ñaar man fa tegoon san Sénégal bi ñu sanc yëpp waaye lu ma def ñaara ma def yow kay wax dëgg yàlla nangul ñu ne ma sunu ci équipe lan lan lan ngay xaar ci ñoom ci. fu mu ci li mhm. may xam na ne ku dem woon moo ñu def. Mhm. ñoo koy xëccoo ay nit lañ dañuy am yaatal dara. waaw am jom mooy eggale lu fu waay egg jom la fa yeggale. équipe mhm. nationale bi ay professeur la nga ci ne trois bi xaalis jox loolu surtout boobu. ñu ñaanal ko coow ba sonn ñaari salaamaaleykum fédération football bi indiwuñ ko fii. di ko def xaalis football bi moom ñaan nañ ko def ci as ci stade yow fukki région ñeent boo ñëwul Dakar doo football waaw yow bopp loolu mos nga ko gis. Hmm, yéeme na. fukki région ak ñeent boo ñëwul Dakar doo football. Hmm. yeneen région yëpp ñu bàyyi na loolu nag ay boo ko defee kenn du ko def ñëpp doon na ñëw Dakar. Hmm. ñëpp dañ ko accaparer def ci di Dakar. parce que président Macky Sall agul fu mu fanaan ci àll bi bu génnee palais bi ci àll bi day àbb ko. non bu ñu defaral alee bu ko defee xale yi mën a toog foofu ñu defaral leen daal seen tool yi defaral leen ay tànk ko ne man saa toog ku bëgg football football nga defaral ko fàcc bu cawe mais ñu ko félicité particulièrement Sadio Mané parce que xale bu yaru xale bu am discipline xale bu yëg ay bokkam Sadio Mané référence ci àdduna bi yëpp dañ ko war di wane ci télévision di ko médiatiser di ko def direct xale bi gën a yaru ci Sénégal Sadio Mané la c'est un milliardaire mais mënoo ko xam si moom très simple mais xootax xootax yi bëgg rëy nit ñi. Hmm. parce que maanaam maa ngi ko félicité félicité Aliou Cissé. jërëjëf <laughs> jërëjëf <laughs> ñu ngi koy jaajëfal wane na mbégteem ci équipe euh, nationale mi euh, sargalaat Afrique ci wàllu football naka ngeen jàngate raaya yi ñu fa jëlee démb ca Rabat ak euh, lan ngeen yaakaar ci équipe nationale yooyu la raaya lu mu ko mun a jural ëllëg ci wàllu football allo. allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaam. waaw bii di numéro six ASC Manko bu croisement Thiawando moo lay woo. ah le maire ñu ngi lay nuyu ana waa ASC Manko. waaw waa ASC Manko bu croisement Thiawando ñu ngi lay ziar di la ragal bu baax. Ah, nañ ci loolu waaye kilifa gi. waaw jërëjëf li émission bi Abdoulaye. Mhm. Eh, man di bett moo si Aliou Cissé. Mhm. Eh, dama buñ ko joxe équipe bi. Eh, ñu di ko critiquer. Mhm. dama leen wax na leen Euh, Aliou Cissé. boo hmm. ñu koy jox équipe bi dafa am lu ñu séntu si moom. waaw dafa am lu ñu gis si moom en deux mille en deux mille deux mille deux. ñu hmm. euh, jom fulla ak fayda rigueur. Hmm. nekk ci moom alors gis nañ ne jox nañ euh, équipe nationale bi nasaraan su ne na lu ne. alors mënuñoo fexe ba dem. waaw si si lañ nga tamit final Coupe d'Afrique. alors ba mu fa jugee rappelez-vous en mille deux ba deux mille vingt deux waaw si tuuru Aliou Cissé lañ demaat final euh, Coupe d'Afrique euh, kon euh, l'histoire revient ne ment pas l'histoire ne ment pas parce mm-hmm. lépp dafay nekk loo xam ne comme si ay répétition la man dama ne sax ne Coupe d'Afrique bi nga xam ne dundoon nañu ko mm. alors dafa nekk loo xam ne daf ñu daf ñu indiwaat mondial deux mille deux waaw euh, li tax mu indi liste mondiale 2002 dama ne leen ne si si départ bi bi gars yi commencé di saali. waaw dama leen ne attention Sénégal gagné woon na Suède avec les moyens du bord. alors Aliou actuellement il joue avec les moyens du bord. tout à fait xam nga parce que mhm. ñi mu yaakaaroon ñoom ñooy dem pour débuter ko kan bi. Mhm. ñoom ñëpp dañ leen a wax dañoo feebar. Mhm. alors bu ñu demee mu jouer avec les moyens du bord ñooñu mën na leen dem kaan ba ñu gis duñu fo duñu football mm-hmm. Mm-hmm. alors loolu yàlla may na ko sens mu am mu xam ni ñu seen compétence xam mm-hmm. nga ba xam ne ne alors xam na ne ñu kat ndeke mën nañ alors ñu ci def bu demee ba qualifié huitième de finale ñooñu ñëw nañ pour football alors ñoom jom foo fayda lañ war a wone mais seen rakk yi yi ñu yaakaaru sonta ñoo ne indi leen bonne tam de finale kon ñoom ils yi finale tout à fait mais war naa leen danañ qualifié qualifié final de. Mhm. bés boobu man a yow mi wax mhm, téléphone. Mhm. nee naa la coupe bi moom ma leeru. en fait que fi li moom danañ fa dem. mais mais mais tey euh, tey ndax am nga am nga yaakaar ci avenir footballu Sénégal gannaaw jéego yi nga xamante ne équipe bi def na ko ci Afrique def ko ci àddina gi. absolument absolument Abdoulaye. Hmm. mondial bi mooy dax. Mhm. Eh, gis nañ Koulibaly eh, eh, mhm. mu ngi dem fële Chelsea. ah kii mu nga fële Bayern ni mhm. gis nga mu ngi comme ça def ay résultats. alors Koulibaly ak Gomis ñu nekk alors nekk na loo xam ne ni alhamdulilah laay wax. yàlla bu ñuy cat topp. amiin amiin man daal dama bu fukk di gas. na fu na fukk wax. waaye bu fukk ga hmm. fukk fukk suul hmm. waaw loolu hmm. laa bu ñu ko defee rek Sénégal coupe du coupe du monde bii du ngeen gis surprise incha allah mais sa ASC jëlagum na coupe ca ca Kaolack wala absolument foofu sa sa sa lam nenge ak nenge ah c'est na xam na ko ku ne kumbal xam na ko hmm. ku ne maa ngi koo sànjal xam na ko hmm. Hmm. ku ne maa ngi koo kutaal xam na ko loolu mooy ASC Manko bu couragement Thiawande jërëjëf amin amin ñu ngi sargal waa ASC Manko bu couragement Thiawando camp di nuyu waa Koutal di nuyu waa Latmingué waa Yorodu wa Kër Thiakho Mati Thiakho Seri ba ca Mor Souté Kër Mor allo allo waaw gi waaw Moustapha Tall day la wooyee. Kaolack ah, Ndangal. Ah, ah, El Hadj Moustapha Tall bi la yoon yaa ngi Kaolack. maa ngi Kaolack yooyu <laughs> mooy. ah yaa ngi Saloum tey. maa ngi Saloum de. ah ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi taw de macha allah. ah mu mu ngi taw. mu ngi taw de taw na fépp de. alhamdulilah yàlla barkeel nawet gi yàlla barkeel nawet gi. léegi nag dama la noter rek pour vraiment. Mhm. féliciter sunu équipe bi. waaw. commencé ci entraîneur bi fédération. Mhm. ba ci euh, Sadio Mané xale yi am nañu vraiment euh, ngërëm. Mhm. war nga sant leen ci li nga xam ne moom la ñu am. tout à fait muy mhm. euh, raay yi ñu jox noonu. waaw mérité nañ ko nag. te dama la wax fii à l'époque bi ñuy ñuy xëccoo naan Aliou Cissé Giresse nangam nangam may lépp. doon nañ sëkk ci ñi nga xam ne ñooy ñu di tudd lan les sociétés. waaw waaw entreprenariat bi loolu ndam. ñu si wan nañu ko en deux mille mhm. ñu ñu jox ko ma jël dugg ci seen rajo bi ñu leen est ce que mas nañoo xalaat jëli ab tubaab mu ñëw di ñu volé suñu réew. Mhm. ba ñu amee indépendance léegi suñu biir la ñuy jël ku ñu boole ñu jiite ñu mhm. pourquoi équipe nationale de football mënuñu am entraîneur local. tout à fait. te dara waa ji am ay ay ñu wàcce ko daal di jël Aliou Cissé. ba ñu koy jëlee léegi ay ndam rek ndam rek. donc mhm. am na ay côté yu a a a mhm. bi moo tax aussi ñu dem a dem ba am tey ndam mhm. ñu jàppoon ci woon dafa am defar rek ñu tax comme ni ñu si basket ñeneen. kon tey bi ñu am duñ ko am. duñ yem leçon la pour ñun. ñii dañoo war a gëm suñu bopp ba pare nag persévérer gëm bañ a bàyyi. Mhm. jiital ko jàppale bañ ko fàkkatal. waaw buñ ko defee rek suñ bëgg dem dañ fa benn phase. Mhm. coupe du monde bii ñu wut dëgg ne dina war a jëli coupe gëm ko. Mhm. wallaahi dañ ko indi. il faut ñu gëm suñu bopp. tout à fait ëppale wuñu dara ñu leen gën xool. kon il faut ñu gëm suñu dem jëli ndam indi ci Afrique gii. dafa jot. que seen Afrique si gi si gi nag àdduna bi yëpp. waaw parce que amoon mérité nañ ko te war am nañu capacité yi. am nañu ko am nañu ko man loolu moom naa ko wax aussi pré félicité aussi le président la République nga xam ne moom moo leen jàppale dafa jox leen budget leen jox ba ñu agsi fii ñu agsi mhm. kooku vraiment maanaa jig na réew mi mhm. si ni ma ko mën a waxee parce que vraiment lépp ci kanam lépp moom ci ci ayam la mhm. muy coupe d'Afrique bi muy stade bi muy raaya yi ñu am ni te yeneen raaya yu ëpp yooyu ngi ñëw ndax vraiment ayul gaaf te vraiment man gis naa ni ah li nga xam ni moom lay yóbbu réew mi ñu ngi koy réalisé. jërëjëf loo xam ni ñu bëri defuñu ko fi juddoo suñ ko fi mhm. kon nag kooku it nañ ko jàppale. dañ mhm. ko fakkatal parce que bu fakkataloo ñun ñoom ni lii noonu bëgg na. Mhm. ndax boo xool am solo moo soo bëggee rek même boo tëlee suñu mën na laa jàppale. boo bëggee boo boo mënee nag. te bëggoo mën ngaa bañ a am mën ngaa a résultat. moom ñëpp bëgg na. kon nañ ko jàppale. Euh, Hadj Moustapha Tall waaw nuyu waa AS Saloum. jërëjëf ñu lay jaajëfal bi la yoon newul ci xolu Ndakaaru newul ca Dakar Plateau euh, seete ji na mbokk ya ca Saloum mbokk yi ñuy jëlaat euh, keneen jël suñu auditeur gu mujj allo. allo salaamaaleykum wa rahmatulah maaleykum salaam. El Hadj waaw kilifa gi. Ousseynou la. Ousseynou Guèye. waaw ñu ngi lay jaar baax. Euh, mhm. am mbégte loolu wax dëgg yàlla. Mhm. raay yi nga xam ne sunu gaynde yi amati nañ ko. waaw di leen ñaanal mu nekk seen diglaay. Mhm. mais yàlla na yàlla def mu nekk ndiglaayu réew mi. amiin waay amiin. Euh, euh, euh, lu nekk lu am rek mérité na na ko waaw mbaa borom Mbacke Bari lu mu am rek yeewoo na ko. ndax am lay. Mhm. Sadio dafa yaru. waaw Mor ñaa wax na ko léegi lu mu ci wax rek am na lu mu ci bàyyi. Mhm. waaw Aliou Cissé nag moom. vraiment moom it ñu ngi koy ñaanal ndam yi gën a yokk parce que lu nekk dégg na ko Sénégal mm-hmm, mm-hmm. Aliou lu lu nekk wax nañ ko ko Sénégal ci ci amul compétence xamul mm-hmm. dara lu nekk mais gis nga tey li ko yàlla fayee kon day wane ku bëgg d'Afrique te nag na xam ne am na nag ay yeneen réew yu ko soxla kon nañ ko téye bu baax ñu yokkal ko salaire am bu ko jaree te man dama naan Ablaye lépp lu football indi Sénégal ci mm. xaalis mm. nañ ko delloo rek dafa leen xale yi ay stade yu baax mm-hmm. comme stade yi nekk Dakar ñu fexe ba région yëpp moom ko vraiment xam nga ndawu Sénégal safoo nañu léegi football foo romb ci mbedd yeeg terrain yi gis leen ñu football ah, gis leen ñuy football loolu nag dafa am loolu leen di accompagner mm-hmm. mu taaru méngoo ak stade yi nekk ci àdduna ci solo. waaw man maa ngi leen di jaajëfal. ci ànd bekk Walfadjri quatre-vingt-dix-neuf point zéro daanaka yegg si nañu ci njeextalu questions auditeurs ñu doon ànd ak suñu équipe nationale doon leen sargal doon leen kañ doon leen jaajëfal ndax def nañu lu rëy defati nañu lu rëy ci Afrique gannaaw Coupe d'Afrique bi weesu ñu jël ko ca Cameroun bi la yoon Sénégal jël na ci raay yu bëree bëri ci football kat bi gën a ràññeeku ci Afrique di Sadio Mané. Eh, di sagu Sénégal Aliou sise tamit di sagu Sénégal di entraîneur bi gën a ràññeeku ci Afrique eh, Pape Makhtar Sarr yi tamit di ndaw footballkat bi gën a ràññee eh, ràññeeku ci Afrique équipe nationale doon équipe bi gën a ràññeeku ci Afrique Pape Ousmane Sakho di ndaw bi gën a rafetle bi ci mbokk yi démb nag euh, Sénégal siggi na lool ci Afrique ci wàllu tàggat yaram mu ñeel euh, football yéen fu ñuy jeexale euh, questions auditeurs ci baatu askan wi wàllu fajiri 9h dem ba weesu fanweeri minute ca ngan Alassane ngan Sayer ma nga ca Kaolack jàpp yi itamit yorodu jaajëfal kii di Jibril Ndiir borom Yoff Ndengaañ ne woon ci digital bi Adama Ndiaye borom Pikine ne woon ci machine bi ci kàddu gi Abdoulaye Bopp mbokk yi yéen ak ñu jeexale questions auditeurs di leen jaajëfal ci kóolute gi bu neski see incha allah ñu dalal waa équipe Jomet euh, euh, Sanjogu Mbeng ak Soyibu Diop buñ ca noppee euh, kii di oustaz Souleymane Diaw fas ne leen gunge ci yor yoru ajuma tey ji ñu yendoog jàmm ak programme Walfadjri yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi